ndax safinatul amaan bi ko sëriñ Saalixu taxawalee 14 février 1997 boobaa léegi war naa mat ñaar fukki ak ñett ci ren sëriñ Muntaxa itam lii mu wax dafa wax ne mi ngi sukkandiku ci la sëriñ Abdoulaye daan digle ak lim daan tere ca loola la sukkandiku ba taxaw gën cee soññee foofa it la sëriñ Saalixu taxawoon ba ci 97 mu ne loola da koy gën a feddali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 donga yi seenub liggéey ak fi ñu war a jaar dana yomb waaye nag kuy seetal da njëkkee ci sa bopp kon nañ njëkkee ci suñu bopp bu ñu génnee donga yi man ñoo roy waaye dama ne su rek di ko kër di taseeg donga yi ci mbedd bi di leen fitnaal loolu xel nangu ko tëdd boobaa ndax sëriñ bi lu baax rek la bëgg te lu may fàttali ni alxuraan fàttali damay wax ne toujours sëriñ Tuubaa moom boo koy seet te xamoo xoolal alxuraan ak sunna lu ci waroon moom rek sëriñ bi nekku ci kon sëriñ bi foofu rek manees na ko feeseer kon yàlla ñuy yàlla dimbali defal ñun dimbal ak tawféex di gërëm gouverneur ak chef de service yi fi teew yëpp ñoom it am nañ ci wàll ndax am na loo xam ne fi la liggéey ñiy liggéey mën a yem la ca des ci seeni loxo lay dugg bu boobaa nag kon taxawaay ba tey war ba sëñ bi am ko ni mu ko bëggee ci ñoom lañ ko gën a séentu kon yàlla leen yàlla jàppale ci yéene ji ak yéene ji am ba yebal leen kon loolu bu amee rek sëñ bi am li bëgg te sëriñ bi xam na ne li ko gën a ndar ci taxawu njaboot ak askan wi mooy defar jikko yi jikko bu baaxee rek baax bu na rek defar gu duutu kon sëriñ bi wax ji waxtu bi dafa xat maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di jiital cant gi ci sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Ahad ngir mu jotalal ñu ko sëriñ Mouhamadou Mountakha di leen ñaanal yàlla mu yàggal leen fi te may leen di leen xamal engagement ba ñu ko jël ndax sëriñ Mountakha wax na ma ne ma na nga xam ne bu fekkee sëriñ Saliou benn la la joxoon sëñ Adila Jibaar yow yokk ci benn sëriñ Sidi Muxtaar yokk ci man fukk laa ko def kon loolu gën nañoo soññ te noonu suñu jëmm yi moomale wuñ ko ku may sëriñ Touba njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall nag yàgg nañoo ànd ak ñoom ci liggéey bi yaakaar nañ leen ci te kenn mënta tudd yoon bi te jiitaluñ leen ci kon yéen it liggéey bi ñoo ko seq te xam nañ ni ngi ciy doxe yàlla ci yàlla fay lu ñëpp ñu ngi leen di tàllal suñu loxo fas yéene ànd ak yéen te di leen xamal ne Safiinatul Amaan ni mu daan sant kenn muy beru di liggéey ñu ñu xool ko mu ne Safiinatul Amaan ma yebal wala moom laay liggéeyee déedéet dañuy bëgg boo doonee membre Safiinatul Amaan itam boo gisee loo xam ne jaaxal na la nga woo ñi ko seqal ñu ñëw taxaw ci sa ngeen ànd te la gënal nag ngeen jiital am njàngale ak maslaha bi nit ki du tiit ba du wax ak nit ki dañuy wax ne mu rus la gën mu ragal ndax bu la ragalee bu la gis lam bu la rusee nag day jeexital ci xolam ak xelam kon yàlla ñuy yàlla dimbali ci loolu ba ñu mën a jëfe li sëriñ bi bëgg maa ngi leen di bari wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah